xamante ni ñu ngi koy wax mm. voilà mi ngi noonu balaa ñuy ñëwaat ci li nga xamante ne nii peut-être mooy doon ay information yu ñuy jëlee foofu ca diwaanu euh, Tamba policier bi nga xam ne moo délivré woon attestation chroniqueur bi di Ahmed Ndoye moom identifié nañ ko euh, IRHM daal di ko sanctionné aussi bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar waaye tamit euh, tey ji lañu ko déféré ci tribunal grande instance hors classe bu Dakar foofee la ñu ko rek fa la war a jano ak ki nga xamante ne ni Euh, moom moo di euh, procureur xool ba xam euh, naka la ñuy def ci ay mbiram cuun ci loolu ñu jàppoon ne sax mbir yi mën na bañ a yem ci Ameth Ndoye ci bu ñuy wax foo et usage de ci attestation bi nga xam ne moom la yor policier bi aussi am na lu bari lu koy xaar dafa mel ni bu dee moom la. ah di xamante ni simmi sax dañu mm-hmm. mm-hmm. bu dee yaa ko def. Mm. da la ciy fekk. Euh, article 130 def na mhm. tout fonctionnaire ou officier public qui dans l'exercice de ses fonctions aura commis ou tenté de commettre un faux mhm. koo mën a doon nga nekk fonctionnaire wala nga ne ko officier public kon policier bi nga ji képp ko képp koo képp képp kuy liggéey ci turu état maanaam pour mu leer mhm. euh, nga nga def wala nga jéem a def nga jéemoon sax nga ne eh dama xaaral ma bàyyi ñu constaté dangaa jéemoon def loolu yaa ngi ci biir ñu ne euh, nga dem ci article 131 moom moo punir moo wax ci feey mais peine bi mooy 132 daf ne seront punis de la peine d'emprisonnement de cinq à 10 ans pour ñooñu nga xamante ni ñoo def loolu léegi bu dee bu dee ci coor yële dafa am ay sanctions disciplinaires ñu la dàq mm-hmm. mooy da ngaa def erreur wala da nga def juum ci ci li nga doon def Mm-hmm. kooku dañ lay dañ lay dama mën la sanctionner ñu ne la euh, am na sax prison bu ñu lay tëj moi na un ami je pense que c'était un policier bu def erreur dàqunu ko dañ ko avertir mm-hmm. ñu ne ko boo ko defaatee mu defaat ñu avertir ko su ma jumulee ñu jàpp ko je pense que tabaski moo maa ngi yaa ngi may fàttali tabaski bi dañ doon waaj a dem tabaski moom tëdd tëdd na au moins deux semaines xaw ma un mois mm-hmm. génnul commissariat ba ñu pidir ko génn fa boo ko defee yaa ngi risque également ñu blâmer la wala ñu retrograde la boo yéegoon niveau benn dañ lay mun mën la wàccee wala nga nekk fii ñu sànni la feneen euh, wala bu gën a bu gën a bon bi moom mooy radiation mooy que ne yow soxlatu na suñu corps bi mhm. ñu simmi la dàq la léegi nag loolu c'est corps bi la maintenant bu dee da nga def lu yoon tere comme waa ji bu dee dëgg la nga xamante ni moo signé faux faux boobu nga xamante ni moo moo nekk ci attestation bi code boobu day dal ci kawam article 130 boobu ak 132 boobu li daal day dal ci kawam parce que day fekk moom bokk na ci li ñu tuddee ñi ñuy catégorie yi ñu wax tout fonctionnaire ou officier public moom da ci bokk parce que le policier et un officier le le le le le le le le des impôts et domaines sont fonctionnaires donc même l'enseignant sont fonctionnaires tey enseignant yi bindoon fii faux mu jox la foo diplôme dugg na ci biir. Hmm. universitaire bi dugg na ci biir et cetera képp koo xam yaa ngi liggéey ci état dugg nga yaa ngi ci biir boo defee li nga xamante ni mooy document boo xam ne dafay jóge ci faux. léegi nag loolu bu la dalee bu fekkee da nga nekk ci euh, police bu dee yow yaa ko def mais dañ lay rëcc. dafa nekk. bu dee gendarmerie gendarme nga gendarme nga aussi bu dee juge bi nee na yow yaa ko def dañ lay radier si bu ñu la jugee que condamnation bi définitive dañ lay radier boo nekkee militaire aussi noonu la boo nekkee enseignant aussi noonu la boo nekkee médecin noonu la comme le gars de ku ñu jàppoon temps yi. Uh-huh. docteur Mbacké. si c' waaw bu ñu constaté moom moo ko def il sera suspendu de l'ordre national des médecins du Sénégal. Mm-hmm. mooy mi ngi noonu ci euh, mbirum euh, Ameth ndoy du ñàkk leneen lu ci xew euh, ci moom policier boobu dinañ ko am ci kanam actuellement daal mën nañ jàpp ne defee nañ ko ci tribunal mu fas yéene jano ak procureur mais dañuy ñëw ci campagne bi. laataa ñuy dellu mais ci Ameth Ndoye xam nga. Mhm. bon may wax rek waxtaan bi ñu waxtaanoon keroog man ak Thioune. Mhm. gis nga mooy liñ doon wax ne mbir mi. wóor buñ ko toppee boo tuut mën naa dem balaa ñett. que lu mu néew néew mën naa laal ñaar. c'est clair loolu mooy ci yoon boobu la jëm mën na laa laal ñeneen gis nga tànk mi gis nga pratique bu bon ku ci nekk danga koy teel a bàyyi rawatina ñu commencé nekk ci résime bu normal fekk yaa ngi koy def mën naa am sax laajoo ko xaalis sa xaalis nga ko defal wala dara yooyu su problème amut rek garaawul mais bu problème amee nga xam ne lu garaaw a garaaw nga def mm-hmm. yii lay mën a doon tey buñ la ci toppee ba kii la parce que tey kay mënul jékki-jékki rek jël attestation xamoon nañ ne attestation day am li ma doon wax mooy soit mu nekk ñett muy kële moom déposer plainte mën naa déposer plainte te fekk naa muy moom moom it mën naa bañ a yëg alkaati jël ko bu boobaa sax loolu day gën a garaaw maanaam alkaati dafa tooñ ñaari yoon tooñ na réew mi mais tooñ na benn jàmbur boo xam ne mënoon naa dugg. Mm-hmm. moo tax plainte waajooju kii alkaati bi bu fekkee ne moom la man dama jàpp ne mën naa gën a sonn sax am ndooy mhm. mais euh, il y a une chose aussi d'abord comme Ameth moom mi ngi placé nañ ko su mandat de dépôt itam di ñaan mu génn ci xat-xat yi mu nekkee mais xam nga fii police ñoom dañ ni la police ne protège personne man dama koy rafetlu parce que cas bi mënoon nañ mënoon nañ bañ a egg fi yëpp ñun mënoon nañ bañ xam ni c'est un policier qui est impliqué. parce moom moo joxe benn attestation boo xamante ni. bu ci gendarmerie duggoon duggul ko xam. waaw moo tax ma ma ñëw ci dinaa ci ñëw ça veut dire tey mënoon nañ dem om de tenue yi di protéger seen nawle naan. Euh, su ñun la bokk wala kii ñun duñu xam gis nga yii nii di am nii. Mhm. dérive yi di am ça n'honore pas seen métier bi. honoré wu ko policier wala gendarme boo dégg ci corruption boo dégg ci faux et usage de faux wala yu ni mel day tax ñun duñ leen mën a ñeme du leen mën a respecté mm-hmm. alors que mm-hmm. ñoom dafa am benn war ma bu nu sekk suñu digganteek ñoom mooy li ma doon waxaat ni la respect il est réciproque tey munoo di jël attestation di def ay fausse attestation munoo aussi di Euh, am na benn kàddu boo fi waxoon samedi passé euh, ñooñu ñuy defar lal basan ay lal basang ay yeneen ak yeneen yooyu yëpp mm-hmm. ñoom ñu koy def bëgg ñun aussi ñu ñuy rassuré wu ci ñoom wala di leen di leen wóolu te bu dañ lay arrêté bu la arrêté li nii ñu koy def mooy jéem a lijjanti attaaya wala café xam ne yooyu yëpp honoré wul li nga xamante ni mooy métier bu noble bi nga xam ne ñoom moom la ñuy def ci réew mi ndax tamit gàddu sécurité ay nit du ay caaxaan yow nga dem ni mu tu as choisi de le faire on t'a pas yaa ne da ngay choisir doon policier ou gendarme léegi nag da war a euh, wàccoo ak charte yi nga xamante ni mooy sa métier bi mu la laaj c'est comme le journaliste c'est comme le médecin c'est comme autre quelqu'un boo xamante ni menuisier bi ba ci maçon bi mm-hmm. donc il faut surtout ñoom ñu conscient ni seen métier lu koy yàq du jógee ci sénégalais lambda wala ñun ñii di wax mais ñoom la ndax la koy defar outil itam ñoom la c'est mm-hmm. quelque chose bu ñuy déplorer rafetul ay policiers ay gendarme ñu leen di jàpp ci fee yii nii si c'est désolant en fait mm-hmm. c'est vrai euh, ñaaw Euh, mi ngi noonu euh, mu di rek euh, mbirum Ameth Ndoye maa ngi koy wax toutal à ci campagne bi nga xamante ne ni moom lañ nekk jëm ci élection législative yu 17 novembre ñu gis Ousmane Sonko moom mi ngi def ay caravane di drainer aussi dañu koy wax foule boo xamante ne ni bari na lool démb sax mi ngi woon sama dëkk gis naa ko fa. <laughs> ñun saa yeewoo rek. fan sa dëkk. donc tudd na ko parce que nuyu leen nag. waaw nga ne ci loolu laa jëm moom de saa yeewoo ñun yëg 2000 <laughs> la ñuy xaawee 2500 la ñu xaawee boobu ba kon boobu mu nuyuwaat ba 1100 nuyu la maire Mame Baye Niass <laughs> waaw. naa ko nee ko dañuy commencé 11h30 nee ko dañuy commencé 11h30 maa ngi doon wër suñu waa kër mi malheureusement gisuma leen ah, ci vidéo yi amul dara tey <laughs> yeewoo rek mooy loolu. mu ngi fan actuellement ah, bi ñu xajoo moom rek ah ñu xajoo Ousmane rek Ousmane mooy fekk suñu heure. ah ñu buuxante ñu buuxante ak moom ah aussi ah, gis nañ Amadou gis nañ Amadou ba tey léegi yëngu na nag xam na ne ñu ngi ci campagne. kii ah, Amadou moom yàlla Abdoulaye Sylla Tayiru Abdoulaye Sylla xam nga Tayiru Sarr mi Tayiru de moom ay daf mel ni. tey non ñëpp a ngi yëngal. yaram moom tàng gis naa <laughs> amul doole. Ah, mel ni yaram nee nan la ko joxee nee ñi nga ñi ngi gis ñi ñu leen ñuy diri ay nit daal nit ñi di leen topp mu ni mu ni mbetteel dina am ci ñoom daal ci élection yi. <laughs> Amadou Ba nee na wër di wax rek. <laughs> bëri nee na <laughs> na. ah na daal nee na nee na Sénégalais rectifier le recours de commise. waaw loolu. amul ah, ah erreur lañ def. Ah, ay li ñu nekk ma ne ma ne ñu nekkee di ko ñaawlu. ak policier yii di lal basang. Mm. kañ la xew. kañ lañ ko remarqué. police dem fekk ci pharmacie borom pharmacie bëgg a wàccoog yoon ne ko du la jaay ndax amul ordonnance nga woo say gaar ñu yóbbu ay nit di faatu kenn du ko kii. médicament bu ndul jaay sur ordonnance. waaw sans ordonnance waaw yooyu yëpp si Macky ay faux médecin faux douanier faux gendarme faux faux faux faux yow Amadou yow Amadou koo yàpp. au début de amoon na fi non. waaw Amadou koo yàpp. <laughs> non non Macky non non leer Macky. lu ne xew na xam nga leer Macky leer Macky. moo moo tax moo tax ñuy wax. Thion moo tax ñuy wax affaire affaire compte bu am. bu am 1000 milliards ak ak ak hmm. yooyu. ma ne leen yéen yéen ci beneen régime garaawul ak régime Macky Sall. tout est possible non moom moom bu fa duggaat non bu la neexee dama yi ñuy wax nii yëpp xam nga man li may wax faatu mooy. ñun fi ñu. Mm. état bu normal ak bu anormal la ñuy wax. Mm. xam nga anormalité bu yeggee fenn fii man c'est très normal ah ñenn ñi naan nangam kenn xalaatu ko. léegi est-ce que duñu xaar loolu tey jii nii même bu fekkee ne da nga jàpp ne wax na mun a nekk euh, ba ñu gis fan lañu ko teg parce que démb gis nañ El Malick mu ne euh, loolu am na te dañuy bàyyi. Euh, bu élection yi passé lépp dina leer. comme si que ne ñoom ba ci El Malick ñoom. renseignement ki ko yor ki ci nekk tiim ko. mais mais raison de plus mu war a bàyyi. justice bi di def liggéeyam non non non non non non non non non Abdou Mbaye am na lu mu wax ne yëguma Abdou Abdou Abdou Mbaye Abdou Mbaye taxaw na fii nee na ci affaire euh, euh, kii bi Petro-Tim bi muy nekk en tant que premier ministre jamono boobu nee na yëgul teew loolu jàpp nga ne c'est impossible. loolu c'est mais mais yëgul de daf ne amul loolu mënul nekk. non non waxuma lii non lii non non kii wax naan lii amul. ci magistère am étant premier ministre mbir am na ci mu ne yëguma ko te waru. mais pet xam nga pétrolier ak banque bokkul banque bi domaine am la. mu maîtriser ministre premier ministre sa domaine nekkoo ministre. waaw mais ba tey du domaine kan mooy banque yi ak ma tuuti. ça c'est une profession un domaine. coon da nga may may nekk ci domaine. li xew ci réew mi. te mënul nekk te nit jàppoon ne nekk bari na léegi nag loolu Ousmane Sonko dafa taxaw wax te ci renseignement la waxee mm. ñu negee ba ëllëg amul bu waañu mais taxaw naan mënul nekk mënul nekk te ñu nekkoon ci mag man j'aurais aimé man j'aurais aimé que Ousmane Sonko waaw léegi nag léegi waaw kay léegi léegi non xaaral maam ndaag maam ndaag xam nga Ousmane yeggut foofu kon da ngeen di yem fi mu yem kon da ngeen di yem ne Ousmane kon ñiy taxaw di wax kon tamit nee leen ñoom gaaw nañ kon dañoo waroon bàyyi ba ba Ousmane ne leen banque bi ci Sénégal. parce que banque yi y xam nga xam nga Fatou. banque non maam maam maam xam nga yow anti Sonko ak ñeneen ak lu ma def anti Sonko si xam nga xam nga du nit nit ki taxaw nekk moom magum jëm nekk ci renseignement. Mm. taxaw ne am na compte bu ñu gis 1000 milliards. Mm. ku nekk ñëw taxaw wax man danaa d'accord mm. opposant bu ko wax. mais nañu ne ah lii kat yanuwul maanaa wala lii waruta am ci état bu normal war a waruta am parce que norme CEDEAO CEDEAO bi ko normé ba loolu ne mënul nekk mais CEDEAO boobu la Macky Sall contourné ba jub bu bor yi 83 pour cent te alors que 73 pour cent la ko yemale xam nga nit ñi faaw tamit bu amee ay fait yu am yu inédit yu bëri yoo xam ne su Macky Sall man ngeen a jox bonne fois Ousmane Sonko mi ko wax jusqu'à ngeen gis lu ko dindi. mais taxaw naan amul a ñeme yàlla. mais xam nga ñi ki taxaw ko ngeen bëgg ne nga est-ce la woon bés buñ ko est-ce que buñ la woon la àttee yàq Ousmane Sonko topp naan ay. Ah, ndax yow tey tey wala amul xam nga ñuy fi Ousmane nekkee xam nga tey ñun lan la ñuy xaar Ousmane c'est le premier ministre de ce pays léegi nag moom moom comme c'est le premier ministre de ce pays dañu bëgg lépp loo xamante ni ci justice la war a jëm parce que boo nee euh, tey sénégalais bi am na am na am nañ benn benn